asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di sant gannaaw cant gi ñu ngi leen di gërëm di Serigne Touba mi tax ngeen ñëw Serigne Touba mi tax ngeen ñëw yàlla dafay aaju yëpp moom rek moo ko man yàlla nu ko defal ci barke Cheikhul Khadim eh, Brésil sori na lool waaye jege na lool ci bi bu si ngeen bu ngeen yàlla delloo ci réew ma. dana bax dana bax bu soobee ko Xadiim dana baax eh, bu len tit bu len ragal dara ndax ki ngeen andal ca and ak moom desul ngay ragal dara wala tiit dara li ngeen bëgg fi ak fa lu jëm moo ko am yàlla ñu ko defal ñun ñëpp Sëriñ Tuubaa bu ñu ko jappé ta xam ñu ko jappé lépp lu ñu bëgg dana am fii ak loolu kenn nan kenn rek nan ko kennal waaye foo dégg nit naa sëñ Tuubaa ak diw bul tontu yow sëñ Tuubaa ak moroom sëñ Tuubaa ak diw boo ko dégg rek bul tontu bu fekkoon ne doon kenn sëñ Tuubaa nen ko war a kennale nii ndox la xew di baax suñuy rek koy moo koy def nan kenn du kenn moom ba ko yàlla sàkkee tegu ci moroomam li ñu yàlla defal nag bu ñu ko xamee dana jàpp Sëriñ Tuubaa ñun taalibe bi ñu bëggante te ragalante te yërëmante tey dimbalante ndax kenn ku ne la nga yor ba yaakaar na yaa ko moom ndaa wul sa bopp jaaxaan dangay caaxaan Sëriñ Tuubaa la ko kenn mënul dara kenn nit amul dara kene xamul dara serigne Tuubaa mo man mo xam mo am yalla ñu dimbali fi ak fa nu jëm sunu yaakaar gépp nag sëñ Tuubaa tàmbalee fa la yam serigne Tuubaa rek ñu gëm ñu yaakar mo gën doyo mo leewul ci kenn man ko def ñu ñep na def non dañu yaakar kenn ku serigne bi waaye bañ fenn ndimbal ak suñu sëñ bi rek am ndimbal yàlla ñu dimbali lii may wax bu ngeen demee Brésil bu soobee dana baax dana baax su baaxee yoon daaw dana gën a ren te jam rek fay am rek ngeen dem bu ngeen lu a xew ci réew ngeen dem du kenn ku sama morom mënu ko waaye dama ko ñaan ko ci nun la am sëñ bi nun rekk la am taali bi rekk la am danaa wax ne ni ngeen ma mooy saa bokk yi ndax saay bokk lañu waaye ni ngeen mooy <coughs> dama ñoom la am kon bi am na fuñ fii fenn sëñ bi foofu foofu foofu la fenn sëñ yàlla na ci bokk ñun ñun duñu mbokkam duñu ab taali bi rekk lañu doon doon soxla wu noo bokk sëñ bi yaa soxla nekk ci lim taalibeem rek ba mu nangu taalibe gi soxla yàlla na ko yàlla defal noonu ñëpp noonu ñëpp daf na giruma kenn naguma kenn ak taalibe kii yëg joxe boppam ngir yàlla kooku laay kooku la am ci moom soxla kon nag yàlla yàlla na am suñu soxla jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bu ngeen demee ñu fa des ngeen miin ma leen te santal ma leen te gërëmal ma leen xam ne lépp lu ñu defee xam naa ko mm. lu ñu lu ñu mën xam naa ko lu ñu mënut xam naa ko waaye dana baax dana baax